mu ne xam na it maanaam karama maa yomba nam deme yëpp it maam ñoom ñu xam ko nekk ca ngir xamal ko euh, xamal ko taal bi suñu ci waaye tamit tey. xam ne dañ mmh. ko day leer mu ne mi ngi rafetlu taxawaay bi di ci am mbégte baax a baax neen di leen ñaanal baax suñu borom gën leen a gàttandoog tawfeex suñ ci waa ba ngeen gën a mën a nekk ci liggéey bi waaw mu ne sëriñ bi gàttul ak ngërëmam mu ne suñ Ceerno day wax ne Seex Mbeng mi waaye wax dëgg yàlla ñu ànd ko ñoom jamono sëñ Fàllu ba suñ seexoon yi suñ seexonaam yi gunge ci moom mi ñu ànd ko xam naa ne bis boobu moom moo dëgmal euh, war a agsi waaw mu ne sëñ Thierno leeral na ko incha allah rabi waaw mu ne danañ ko bàyyi xel incha allah rabi mu ne xelam daal gën a góorgóorlu bu baax rek gën a dundal sëriñ mhm. loolu rek mooy liggéey bi ñëwee fii ci yow doon sàkku bataaxal ba nga bind pour suuf sa xaadim joo mais ñu bind ko président bi bañ demee toog moom lañ ci sa lañ ci bëggoon lépp jox nañu ko te loolu sa kàddu la sa taxawaay loolu nag ñoo na koy seedeel di ñaan yàlla yàggale fa te ndax loolu fii nga fii ni ñëwoon wax la ko nala la barab ba kat sëñ bi suuf sax lañ bëgg a jot def la Sëñ jumaa ak daara ak kër Maam Jaara nga ne ñu na seen xel dal fas nañ ci yéene soob yàlla da ngeen ko am ni nga ko bëggee te yàlla loolu ba mu sotti ci sa kàddu ci la sottee ndax bataaxal ba bañ ko bindee ba ma ba war ko yóbbu yàlla da ko ministre bi ci boppam moo far ñëwal boppam ma Sénégal daa ñëwoo lépp jàppandi te président bi daa wax ne ni ngeen ko bëggee rek waxee leen ko noonu te loolu sa bataaxal ba rek Mbàkke moo ko moo ko moo ko moo ko waral sëñ maam Thior mi ngi ñu boole guddeeg bëccëg mi ngi jàpp ci biir ak ñu ànd koog ak ñoom si si xam léegi nii ak ñëpp wax dëgg ñu ay jàmbaar lool ñaan daal ñu ñaan ñu ci ñu am ci ndam ndamal seen tubaa ba lépp lu ñu koy lu ñu fay sumb seen tubaa rek mm-hmm. yow lañ fa nekkal jërëjëf di ko liggéeyal jërëjëf waaw mu nekk liggéey barkeel mu ne ndam rek ngeen ci am insha allah a góorgóorlu rek mm-hmm. Mm-hmm. yéen ngeen def dugg na gën gën koo ci loolu la mm. ñu ngi jégalu bu baax mm. maanaam da di Mayumba fa mu nekk day foo xam ne euh, dafa sori Libreville maanaam mat na junni kilomètre daanaka te kenn dëkk fa ci waa réew mi nga xam ni ña fay dem di ko fa defi dañuy jógee Libreville di ko defi ñun ñi ñëpp ñu bëgg nag suñu njiitu réew ma joxe suuf yooyu nga xam ni mooy moom lañ doon sàkku ci moom sa ndigal mu mën a mbokki bi yëpp ci àdduna bi fekk nu fa ngir ndami sëñ Tuubaa yooyu teel a feeñ ndax daan nañ fa ami suuf tey du mujj du mujj foo xam ni dinañ ko mën a dundal niñ ko sàkkoo bu ko bu ko defee nag loolu rek la ñuy ñaan euh, Mbàkke ngir nga ñaanal ñu ci ba ba mbokki taalibe bi yëpp ah tamit ànd ko ñun alhamdulilah góorgóorlu leen ndax da ngeen ci am na ñëpp tàllal seen loxo فمن رام إحساما حوى من تفضل فقد رام أن يحصي نجوم سمائي فلولا إله waa ginnaaw loolu ndegam bawoo nañ ci sëñ bi jële fi kàddu yu soññe kàddu yu dëral sunu pas-pas ci sëñ bi nii dinañ ko ame nañ ko bëggee euh, góorgóorlu leen rek te xam ni na ngeen ko bëggee di ngeen ko ni amee baamu ko wax dëgg yàlla euh, ñu teew nag ak sëñ Koso fii bëgg rek kàddu yi nga xam ne ànd nañ teewlu ko léegi sëñ bi mu jottali ko taalibe fu ñu ne bañ gën ko bañ gën a xam dëgg-dëgg euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñuy defi Gabon fa mu toll sëñ bi ak it murit bu ne tamit foo mën a ne fam la war a toll ba nga xam ni liggéey bi ni sëñ bi di waxee du laal suuf rek te nee na di des si jamono xam le sëñ bi rek a fi des kon liggéey boobu nuy def tamuy xam le sëñ bi xam naa kon sëñ Seexuna eh, ginnaaw bi nga teewloo kàddu yi sëñ bi maanaam ngay jotal ci kàddu yoo xam day jëm rek ci murid yëpp ñu xam ni liggéey bi kat bu sëriñ Touba la euh, liggéeyub sëriñ Touba nag ku jox sa bopp sëñ bi fuñ ko wootee rek yaakaar naa ni yow euh, xalaat amatu ca na samaan wa rek dégg rek ak topp ak daal di jëfe ca saase kon xam naa nga jot li kàddu yi jëm ci euh, xam ni rek mboolem ñi ne Gabon ñi ne ci àdduna bépp rek ñu ngi leen cey woo. ñoo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. ginnaaw ba ñu teewee ci barab bu màgg bi barabu tedd bii ci kanamu sëñ Mouhamadou Mountakha di ñaan yàlla mu yàggal ko te wéral ko ku ne xam pas-pasam ak euh, pastéefam ci Serigne Touba loolu kenn wérantewu ko ñu ñëw woon tey jii nag doon ko ziyaare ànd kook sëñ maam Thierno Mbacke mu baax mii di doomam waaye di kenn ci karawaan euh, bi ak i taxawaayam guddi ak bëccëg. ñëwoon ci sëriñ bi ànd kook sëñ Seex Mbeng mi toog di jëwriñ sëñ Baddo ak sëñ Kala ak mbooleem ñi nga xam ne amoon nañ yéene ñëw waaye yàlla dawul asewuñu ñëwoon doon taataan ndigal ci sëriñ bi euh, kàddu yi soññee kàddu yi ñaan ku nekk dégg na léegi li mu wax euh, ñaan na ci soññee ña ci wax na tamit da ngeen ci am ndam te loolu li koy li mooy sëñ Seex bañ ñëwee ci biñ mujjee def karawaan bi bi ñëwee fii ci sëriñ bi fekk ko saal bi barab biñ ko waxoon daa waxoon ne seen xel na daal da ngeen ci am ndam waaye li ci gën a yéeme mooy yàlla dafa mel ne bi mu ko sottal da ko jaar la waat ci moom ndax ci moom lañ ñëwaat moo bindaat bataaxal bi bataaxal bi tamit jëm ci président président tamit yëkkati ay kàddu keroog biñ bokkee toog biñ ko waxee suñ kàddu bi mu daanoo moo jël téléphone am di woote pour suuf sax ne ni ngeen ko bëggee ak fu leen ko bëggee te loolu kon ci sëriñ bi rek la bàyyi ko ci maa ci ay kàddoom ak ci taxawaayam kon nag tey bu waatee fii mu yëkk ci ay kàddu ñaanaat ci soññee ci suñu xel lay dal bu baax a baax eh, kàddu yi maam Thierno wax léegi matal na lépp jotal na lépp xanaa dafa fekk lu baax du doy ñu ngi ci eh, soññ mbooleem koo xam ne ab jullit nga mbëgg suñ tubaa sa mbëgg la lu baax dalaa ñor ak fu ma di nekk moo xam góor la moo xam jigéen ñoo xam ne liggéey bi du liggéey yëpp kenn ku du liggéey Sëriñ Tuubaa di sàkku ci mbooleem fu waay ma di nekk rek mu man cee jàpp ak lu mu ci mën a jàppee ci biir ak ci ndax jàpp naa ne mënuñoo waxtaane Sëriñ Tuubaa di tëb maa yomba munta am liggéey ba mu fa liggéey ba yàlla may ko ci ay may yoo xam ne am na yoo xam ne sañ na ko wax am na yoo xam ne sañu ko wax kon nag day mel ne loolu ku ci bëgg a bokk da ngay fas yéene daw ñëw ca barab boobe ànd ak eh, lig ànd ci liggéey bi fas yéene jariñu kon sin si xam naa ne eh, kàddu yooyu rek laa ci toftal di di jégalu bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw ci sur sun borom tabaraka ay di jur yonte bi alayhi salaatu wasalaam di sant yàlla bu baax di sant mboolem taalibe yi di leen nuyu nuyu kilifa yëpp kàddu yi nag kàddu yu xeebu la yu yam la waaye nag luñ ci xeeb-xeeb suñu bopp rek ñu teg ci ndax kàddu yu ndawul sëñ bi rek la sëñ bi moom li muy wax wax na ko dégg dañ ko bu baax te mooy da ngeen ci góorgóorlu te dangeen ngeen ci am ndam loolu doon kàddu yu am solo kon loolu rek lañ doon wut li ci des nag mooy rek mbokk ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom liggéey bi moo xam suñ mbokk yi nekk ci réew mi la moo xam ay kilifay diine lañu moo xam ci tarixa buñ man a bokk jiite tarixa yaa ngi ca topp ñëpp ñu ngi leen koy yëgal den ko bàyyi loo xel leen xam na sëñ Tuubaa ñëpp ko bokk ñoo ngi ko yëgal bokk taalibe yëpp itam nag gannaaw bu ñu ko yëgalee nag kilifa yi ndax kilifa yi ci bari sëñ Demba da ngeen ci dégg seen am na ci ñoo xam ne da ngeen ci dégg seen kàddu te da ngeen gis seen image muy waa kër sëñ Tuubaa yëpp comme ñoom ñoomam mbir mi kenn du leen ci woo <coughs> ñoom ñoo ciy woote waaye ñi ci gën a bari it da dégg seen kàddu ñu woote ci joxe ci ndigal gannaaw loolu itam ñi nga xam ne ñooy taxaw mbirum saayiru réew mi ñoom itam ñu ngi leen ci ñu ngi leen ko yëgal leen ci woo ak seen taxawaay itam ñu di ko ci sàkku nag mel ne ki nga xam ne moo jiite réew muy Mouhamed Bachir Diomaye Faye nga xam ne mooy président de la république di jiital réew mi donc koy yëgal bu baax wax ne ko rek liggéeyub sëñ Tuubaa la te dégg nañ li wax lépp ci kilifa yi nga xam ne moom la dem fi ñoom déglu nañ kàddu yi bu baax ba tax na rafet nañ njort bu baax a baax a baax ci taxawaay bi ak doxin wi kon na ko koy yëgal bu baax di ko soññ te di sàkku ay taxawaayam naka noonu lañ koy defee itam ci ki nga xam ne mooy premier ministre am di ndawam di président Ousmane Sonko moom itam ñoo ngi koy koy yëgal di ko ko di ko ci soññi di ci sàcc di ci sàkku taxawaayam ak uh, jàppaleem mu jàpp ci ñu jàpp bokk jàpp ci liggéey bi ak mboolem ñoo topp ci ñoom ci ñi nga xam ne ñoo leen jiite ci liggéeyu ngóor gi kon ministre yaak directeur yaak ñëpp ñi nga xam ne war nañ caa yëngatu kenn ko nekk rek ñoo ngi la ci eh, yëgal waaye di ci sàkku sa taxawaay ngir nga xam ne eh, bu ko def ngir nun waaye na nga ko def ngir jëm Sëñ Tuubaa ji eh, alhamdulilah rabbil alamin noo ngi sant yàlla bu baax ndax gaboo gañ koy defee président de république ba ci boppam yëg na ko te yaatal nanu ca te bu nu ca yaatalul doon danañ xat waaye ñu ngi gën a sant yàlla ci bi mu nu ci yaatalee moo ko premier ministre ak ministre affaires étrangères am ba nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal moo nekkoon fii ci te yàlla dogal mu xam yoon wi lool moom itam ñu ngi koy yóbbante cantu boppam ak ngërëmul boppam ndax moom dafa am luñ jot a bala ñu leen a wax ci lu be lu yees li dafa am luñ luñ jot a def ba noppi lu président ba ak ak ak ki nga mooy seen ministre affaires étrangères def nañ ci ay taxawaay yu rafet ba noppi ci li ñu weesu ci seen digganteek mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk Gabon nekkal fa Sëñ Tuubaa ni ko sëñ Cheikh naa waxee léegi suuf yañ leen doon laaj ngir muy barab ya sëriñ bi nekkoon loolu yooyu lépp yàlla dogal na yéwénal yéwénal nañ ko te ñu ci yéwénal agul itam danañ ko yéwénal nee nañu kon nag ñoom dañuy am cant gu jiitu ba noppi di doog wax nag ci karawaan bii di ñëw ci karawaan bii di ñëw itam yàlla dogal na ministre bi ci boppam moo waxee dafa bëgg mu nekk nag édition spéciale kon nag euh, ñoom seen cant dafa jiitu seen jëf dafa jiitu Euh, seen cant dafa jiitu karawaan bi kon ñu ngi leen di sant bu baax waaye nag leen soññ rek ci kaw euh, mbooloo mi <coughs> xam ne ñoo bëgg a jóge Sénégal di dem foofa lépp loo xam ne mën nañ ko cee dolli ci ay taxawaay itam ñu dolli ko euh, ca biir ca bis ba ca diggante Libreville ak Mayomba ak Lambaréné itam taxawaay yooyu itam ña fa nekk lépp lu luñ ci mën a def ñu defal ñu ko ci ñoo ngi leen ci soññ bu baax rawaat na kilifa yi nga xam ne dañuy ñëw jàpp ndal guñ leen mën a defal ba mu gën a yomb ci ñoom wala nu mu gën a yomb ci taalibe yi noonu ñoo ngi koy sàkku ci ñoom bu baax a baax a baax dellu siwaat tam nag di woo ci biir réew mi ñëpp ñi nga xam ne ay bokk taalibe lañu wala ñu ay bokk jullit ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ñoom ñoo leen ci woo leen ci sant bu baax leen gërëm ci la weesu waaye di leen soññ ci li nga xam ne moo nekk ci mooy tey ak di jëm ci kanam incha allah di sant tam ñi nga xam ne ñoo ko doon taxawee tàmbalee ko sëñ Cheikhouna mii nga xam ne mooy doomu sëñ Fallou ak euh, sëñ Cheikh Mbengue Bad sëñ Badou sëñ Kalaam ak ñi nga xam ñoom lañ ko seqal ci aw jigéen ku mel ne Soxna Seynabou ak ku mel ne Soxna Batoor ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ci turu sëñ Mountakha ndax liggéey bi sëñ Mountakha moo ko moom kon képp koo xam ne yëngatu nga ci rek sañ nañ la cee sant sañ naa gërëm kon cant gi mi kon kon dañ mi ngi tàmbale ci yéen jaar ci moom am ñoom ñëpp ñu leen ci sant ci turu sëñ bi ambassadeur bi moom dañ ko moom it dañ ko beral cant boobu ndax dafa mel ne moom mooy mbirum mbirum boppam la dafa da def muy birum boppam mel ne ku bokk ci nun te ci nun la bokk ndax ci la boole boppam kon nag moom itam dañ ko beral cant boppam bu baax a baax a baax di ñaan rek eh, ci barkeb sëriñ bi yàlla nangul na ko wuñ nag taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Gabon ak fu fa ma nekk digge fu ñu fa ma nekk moo xam ca Libreville la wala ca Lambaréné wala Mayumba wala ñu nekk fuñ fa mën a nekk rek ci biir réew ma rek ñoom itam ñu ngi leen gërëm ndax gis nañ yoon yi wee jot weesu ni koy àndee ak ñun di ko def ñoom itam loola rafetlu nañ ko bu baax lañ ci daan def nag li ñuy séenu ci ñoom ñu def ko ëpp ak taxawaay yu ko ëpp waa réew ñu sàkku ci ñëpp ñi nga xam ne mën nañ ko koo mën a teewe nga teewe ko ku ci daan def na def lu ëpp la mu daan def ku ci defagutoon na fexe ba def ca waaw ndax moom liggéey bi sëñ Tuubaa te sëñ bi ku ne xam na ne waxtoom du neen lam anxu maalam yu fi di la wax dara lu loo xam ne lu amul lu lu lu neen du ko jublu mukk kon nag ñu fa mu def juróomi at def ay mbootam boromam fekk ko fa yonent bi saa sam fekk ko fa Seydina Jibril fekk fa ñëpp ñuy ñu baax fekk ko fa mu ànd ak ñoom di liggéey kon nag loolu rek moo tax taalibe yi loolu rek lañ xalaat ba tax ñu di ci sonn sëñ bi ci boppam itam nangul leen ko ànd ko ak ñoom joxe leen te jigéen te del leen ne da ci am ndam kon ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi rafet njort bu baax te defe te jàpp ne dañ ko ci am bu soobee yàlla maa ngi jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mbacke waaw xam naa ni nga ko waxee ambassadeur boobu nga tudd léegi muy ambassadeur Seydina Omar Thiaw cabinet bépp muy sëñ njagaloo nga xam suñ mbokkum taalibe la doon consul ba ñëpp la boole mobiliser leen li ci aju ci ay lettres yoo xam dafa war a jaar ci waa officiel jotale na ko njiitu njiitu réewum Gabon ak ak ministère yi nga xam ñoo seq liggéey bi yëpp euh, ñi ngi woo nag mbokki taalibe fa nekk yëpp ci kuréelu daayira yi ak yëpp ci liggéey boobu woote boobu nag ñu ngi ci jiital sëñ Abdourahmane Mbacke ma nga xam ne moo tooge ca kër sëñ Touba ci toftal sëñ Baraka moom it ci ab taxawaayam ak sëñ Massar Gueye ñoom sëñ Bëgg Saalu ci liggéey kër sëñ Touba ga ñëpp bàyyiwuñ kenn mboolem ku nekk Libreville rek ak sëñ Jili Fall ma nga xam ne moom moo fa toogal njabootu maam Cheikh rek yëpp kon daal woote baa ngoog kàddu sëñ bi jib na sëñ Kosso ni mu ci jotee kàddu ngir leeral ko ngir mu gën a agsi ci xam nañ ni liggéeyub sëñ Touba la te liggéeyub sëñ Touba moom njabootu sëñ Touba gépp ñoo war a buur rek jëm ca wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. وسالكنا li barmayu